naqaree bëreel. Mhm. Amara ñëw na ko juum nga. maay ki jafe maay maay ki gën a naqaree bëreel mu ñëw bëreel noonu ñu daan ko. te dégg nga fi may waxee. booba leen daan ñoom ñaar ñëpp. boobu bëgg nga leen daan ñoom ñaar ñëpp. waaw te booba daan leen ñoom ñaar ñëpp ndax kenn ku ne. communication boobu mu def. kenn ku ne da nga ñëw façon boo xam ne du sa façon. te moo leen ci poussé. te moo leen ci poussé. beneen bi si topp booy ñaa moom bosam. booy moom foofu laa jëm si. waaw beneen bi si booy ñaa xam nañ li mu man parce que ndox du bàyyi yoonam nañ waxante li fi nekk rek nag. Hmm? waaw. déedéet non de du bàyyi yoonam. ci yoon lay jaar de. di caa ah, yi mu jaar ko neex dem de. Ah? dañ koy gide ci yoon lay jaar. asamaan si li muy yaatu yaatu du fu ko neex mu jaar de. man nag day dem ma. déedéet bu demee bu dama doon réer te ci kaw amul amul amul amul amul amul amul amul amul amul karason fooy taxaw di jël karason te karason day jeex dama doon réer bi ñu xoolee gan nga xam lii la man mënul lii lañ ko gëmloo mbër mi ci biir entraînement bam bam bam bam bam bam ba adapté wu ci ñu ànd ceeg moom ba entraînement yi jeex mhm. veille combat bi samedi ci guddi këram minuit la ñu fekk minuit këram la ñu fekk une heure euh, dimanche samedi non dimanche. dimanche waaw parce que leen di la woon làmb ji dimanche une heure këram la ñu fekk. une heure ci guddi. dañu fekk yoo xam ne ñu toog ak moom. en tout cas ah, làmb ji jeex na booy ñaa xam nga ne mën na lii waaw mën na lii mu waaw bu ko ci fekk si. Hmm. bu ko exploité. teew liñ la sant exploité ko. parce que koo fekk ci mu ne nag loo ko mu def la ko. Hmm, mu def la ko. modu du consigne le bëre motax mu ñëw bëree ni sans problème. lu ko dara lan ngeen ko tere ci Boy ñap bu jël ko bu lay té bëri parce que bo ñam mën na lolu man la dox ko bu lay tëree bëri. bu lay tëree bëri man lako ndax loxo bi gaaw na dis na. do donc mën na la dur mën na la dur sax do daanu mais lo bu la dalé la mhm. man nga perdre le contrôle def lu war a def. parce que ko bu dalé man nga nax mhm. man nga jéggi sax wi man nga gëmu songu si. ñaar yooyu fi am. ku ñetti affaire la nit. dal nga jéggi saaku yi. Mhm. wala nga toog say tànk. wala nga gëm song. su bul jël ku ndax man na ko. nan la ko mënee. Mhm. nu ko mënee waaw. heure boo cokkaasee. waaw des fa. da lay dugal ku. parce que ah. remise lay bëree. ah boo ko cokkaasee waroo faa des. déedéet boo ko defee jël ku. ndax remise ba. ndax ba. sa ndox lay bëree. moom booy ñaaw. waaw su demee latéral droite dem latéral gauche def un pari client. Mhm. boo ko fekk seen mu dajee yow exploité ko. Mm. soo gisee Modou toujours mu ngi taf ci côté droite am mu ne jéem mu effacé wu ba am li mu bëgg ci moom. gis naa mu gëdd ko benn moom booy ñaaw jëkk na gëdd Modou foofu la xeex bi déclenché boo ko. boo fekkoon nag Modou nekk dafa nekkoon coono da ko fay xaar wala mu moo du sëgg di ko jël si mu dajeeg moom. mu dajeeg moom. mais Modou may ko ay kaar. xool ba xam ne ak ñëwaat. wala mu war a jug fekk si ko. mbër mu ne ak ni nga war a bëree moom ci consigne la bëree ba yàlla may ko ndam démb. Mhm. waaw. kon la Modou waxoon ne Ama moo gën a neex a bë bëreel Boy Niang moo gën a naqaree bëreel loolu ay plan woon ay nax la woon. difficile pour régner wax la joo xam ne <laughs> <laughs> waaw. wax la joo xam ne kenn ku ci nekk bàyyi xel ci ne kii li mu wax pourquoi mu wax ko lu tax mu ne man maa gën a naqare maa gën a neex bëreel kon kon na ko du ma foofu man bu jour baa si nii te loolu mooy li ko arrangé moom mbër moom gëmoon na ko li ngeen li ngeen ko jox moom. Boy Niang ko sédd nee na moo gën a jafee bëreel. waaw mu ñëw na gars man ma man la bis bi man maa ko moom parce que man maa dàq bëri maa gën a garanti. xanaa kon moo tax mu doon wax ne ko bu ñu wuree ci ndox ko bëri. ma dellu waxal leen bu gaawee ma man bu yéexee ma man bu xeexee ma duma bu bëree ma daan. yow lii nga wax yow. waaw lii laa wax parce que fekk na tax ma ko. Mhm. man xam naa ko. Mhm. waaw. kon yéen staff yëpp a réunir. loo toggul doo loo toggul doo ko yàq. waaw loolu dëgg la moom. waaw les toggul mel ni su koo yàq. maa dégg dëgg. laay laay yow itam damay ñëw si par rapport ak komba euh, bi parce que ku ne xam na sa diggante ak Modou yàgg ngeen. yéen a ànd combat bi ni ma ko waxee léegi rek ñi ñoo yor awalum technique technique bi ñoom Père Ndiouga seen Cissé ñoom ñoo yor alum si mais yéen yéen a contact ak mbër mi. Mm-hmm. boo xoolee combat bi am na ñoo ñoo xam ne